seen acte du jour dañ koy dore ak kii di la reine di Jolof Band di Viviane Chidid ku ne gis na ne nag ne jamono ji mu ngay amal ay tournée ci euh, réew yu bëri bokk na ci fa nga xamante ne moom moo di diwaanu Gambie ak sax Guinée moom Viviane Chidid moom sax daal nay génne rek ab euh, clip bu bees loolu nag mu ngi ko tourné foofa ca diwaanu Guinée Viviane nag euh, lu weesu loolu sax gis nañu inauguration ka nga xamante ne moo di doomam di Zeyna ba mu doon bi lay boutique am rek gis nañu rencontre ba nga xamante ne def na ko rek ak son ex mari di Boubacar Ndour ci loolu rek ñu ngay gis sax ca image mu daal di am rek ab complicité bu yaatu ak ki nga xamante ne ah, moom moo di Binta la femme de Bouba Ndour ñoom ñaar nag ah, ñu nekk en toute complicité lors de l'inauguration de la nouvelle boutique de Zeyna Ndour Mia ah, Mabo la ñuy waxtaanee jamono ji nag mu daal di am présence bu baax a baax ci musique sénégalaise depuis mu dal di beru rek di suivre lii di carrière solum moom yaa nag gis nañu succès ba nga xamante ne daal na koy am rek waaye nag gannaaw ab rek laajt bu dox ci moddub abi maam moom nag daal nay dellusiwaat rek ci ni mel di wax sax naan bu njëkk ba na nga xamante ne loolu la adopté woon rek muy style vestimentaire am neexu ko woon dara kon nag bi nga xamante ni sax moom la adopté jamono ji doon na loo xamante ni moom bëgg na ko lool moom Mia nekk l'ex femme de No Face ca Face moomu sax la ñuy rek ak sax nanga euh, nga xamante ne euh, mu ngay rek euh, jot yenn ci ay commentaire yoo xamante ni neexu ko dara ci ay kontam moom nag mu daal di profité rek ci année bu yees bi di deux mille vingt daal di rek souhaité ay meilleurs ña nga xamante ne ñoom ñoo di sénégalais waaye nag daal di am rek ab remarque bu mu def ca nanga nga xamante ni sax ñu nga nekk ca kontam rek di ca wax naka sudul noonu moom nag mu leen di ñaan rek ñu daal di désabonné wu ci comptam bu yi nga xamante ni sax moom daal dina koy am gannaaw ba nga xamante ni moom atum 2023 bi happiness rek la daal di woote ñu daal di wax ci match de gala bi nga xamante ne team Wally Balago Seck ak team sécurité euh, bu Wally Balago Seck ñoom ñoo ko daal di organiser mu nekk match de gala bu neex lool loolu nag daal di nekk une occasion pour artiste bi rek mu daal di saafonteeg ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy yor rek kaaraangeem buy wu ci ay concert yooyu nag daal di organiser match de gala boo xamante ni sax daal di nekk rek en toute complicité ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo daal di yor kaaraangeem Adamo daal dinay àddu rek ah, ci ah, coowal Pape Alé Niang ak détention bi nga xamante ni sax daanaka ah, ci la dal di nekk rek moom Pape Alé Niang ak situation maanaam gën a dégradé woo rek kii di Adamo nag mu mel ni gannaaw si demande yu bëri yoo xamante ni rek daf koy jot tukkee rek ci mu daal di wax rek ci bile ka nga xamante ni sax kii di Pape Alé mu ngi koy dund moom Adamo nag il a préféré rester neutre ci li nga xamante ne moom moo di coowal Pape Alé nopp rek di wax sax ah, ci grève de la fin ba nga xamante ni ah, kii di ah, Pape Alé Niang daal dina koy entamé tamu doon loo xamante ni jamono ji mën nañu wax ne moom moo daal di gën a dégrader rek situation bi pap Alé Niang di dund Fatoumata Ndiaye Fout Tampi daal dina yi rek annoncé a plainte lool nag mu ngi ko daal di jébal rek ak nga xamante ne moom moo di Adji Sarr ak MC Niass gannaaw nag moom ci yenn ci ay audio Adji Sarr yoo xamante ne dafa daal di fuité moom Fatoumata Ndiaye Fout Tampi nag dafa daal di ràññ rek kii di Adji Sarr daal di wax rek ne kii di Fatoumata Ndiaye Fout Tampi jox nañ ko xaalis ba tàyyi ci wetam mu daal a sax nekk loo xamante ni moom daal dina koy fekke loolu nag daal di nekk kadd yoo xamante xamante ne métti na bu baax a baax Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi waral mu daal di annonce rek ab plainte boo xamante ni daf koy daal di jéba rek Adji Sarr ak MC Niass ci audio boobu nga xamante ne moom moo daal di fuité Aïssatou Diop Fall gannaaw ñagas ñagas ba nga xamante ne am na ci digganteem ak groupe Futur Média gis nañ nag fan yi ñu génn débat ba nga xamante ne kii di euh, Bougane Gueye Dany di njiital des médias mu ngi ko doon def moom Aïssatou Diop Fall nag teewoon na ci li ni en tant que journaliste waaye nag ba mu jógee ci loolu daal nay expliqué rek relation ba nga xamante ne daal na koy am rek ak Bougane Gueye Dany wax ci people bi Rangouze moom la ñuy gis noonu rek mu daal di rek choqué waat ñi nga xamante ne ñoom ñoo di internautes yi ak sax la nga xamante ne moom la daal di sol rek am ci ay cliché publié ci ay compte am moom Rangou nag gannaaw wax raar ga nga xamante ni sax defoon na ko ci réseaux sociaux yi mu mel nag daal nay réapparaître rek ak beneen look daal di a choqué ñi nga xamante ne ñoom ñoo di internaute bi tourné ba mu mu amaloon ah, ca réew ma Italie ah, moom Sidi Diop ah, daal dinay rek def doom foofa ca Italie bigal rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo di soppe mi waaye nag leen rek moom moo ko daal di jaaxal ka nga xamante ne moom moo di guitariste ba di Daouda mu mel ni dafa daal di daw kenn gisu ko ci loolu nag di job sax jamono ji mu waroon a ñibbi si Sénégal waaye nag ba léegi ñibbiseegul ndax kat amu nga nekk rek di wër ka nga xamante ne moom moo di Daouda nekk guitariste ba nga xamante sax ba tournée daal di def leen a réer nemes foofa ca réew ma Italie ba nga xamante ne kii di Vigie am na ko ba mu wootee ca esplanade bu Grand Théâtre mu daal di fees ba kenn amul foo teg sa tànk loolu nag dal di tax sax ba ñu dal di dakkaloon bi les concerts teewul moom duyoon na foofu ba mu fees del ngir rek ay raison de sécurité waral ñu daal di dakkaloon bi les concerts mu mel ni nag moom Vigie daal dinay nekk rek koo xamante ni jamono ji xale yi daal dinañ koy sopp lool ca la nga xamante ne mu koy def waaye nag rek gannaaw All Star bu seen Petit Galle ñu daal sax interroger rek nga xamante ne moom moo di Amadou bokk kenn ci ñoom daal dinay rek rafet lu Vigy ak na mu nekkee nouvelle révélation ci li nga xamante ne moom moo di musique sénégalaise waaye nag moom Amadou daal di reste rek optimiste di wax sax naan loolu Vigy def ñoom mën nañ ko def te tamit gëm nañ seen bopp te xam ne dinañ ko def Pawlish Mbaye daal dinay dal ci ñi nga xamante ne Wally Ballago a loolu nag gannaaw yenn sax ci ay kàddu di jóg rek ci ñi nga xamante ne ñu ngay critiquer kii di Wally Ballago Seck moom Pawlish nag gannaaw ba Wally daal di mu mel ni a mu jël rek défense su Wally di wax rek ci ñëpp ñoo xamante ni rek ñu ngi wax naan artiste bi dafa soxor ak sax di jël ay kàddu ñaaw di ko teg ci deram moom Pawlish taxaw tem rek ngir défendre kii di Wally Ballago Seck DJ Padros moom la gis noonu rek moom complicité bu yaatu ak kii di Myrma Myrma nag nekk artiste bu ñu ràññee fii ci Sénégal raaroon na trop mu mel ni nag daal di nay feeñaat rek DJ Padros waat ko daal di koy dalal sax ci émission sama Sénégal waral nag gannaaw ñu daal di amal seen émission daal di nañu am rek ay cliché yu rafet publier ci seen i compte ñu daal di wax ci kawte fi enseignant Bassirou Mbaye ma nga xamante ne moom lañu ñu faatoon rek foofa ca diwaanu Kaolack mel ni moo ko daal di jotale rek ak ndaw li nga xamante ne moo am lu toll ci ñaar fukki at di Cheikhou Kandji ah, faatoon ko mu mel ni nag enseignant bi di Bassirou Mbaye ah, def doon gérer rek wàllum papier administratif yoo xamante ni sax mu mel ni papay ah, Cheikhou Kandji moom moo ko ko dénkoon waaye nag gannaaw mu daal di ràññee rek ne am facture yoo xamante ne daal nay manqué rek jëm ci wàllum koppar mu mel ni kii di Cheikhou Kandji moom moo defoon li ni mel moom Bassirou nag ba mu ko daal di dénoncé baayam rek ca la ko Cheikhou daal di menacé woon rek ne dina ko rey loolu nag daal di tax ba moom Cheikhou daal di bett rek Bassirou Mbaye ca chambre am fa nga xamante ne fa la doon defee rek ay correction feuille yu ay élève am ci la ko dal di rey rek dóor ko ba daal di koy gaañ ñu rawale ko sax ci la daal di ñàkk bakkanam mu mel ni nag ndaw loolu am rek lu toll ci ñaar fukki at di Cheikhou Kandji moom moo faat enseignant bi di basiru Mbaye wa ci a Fatou Lo Dioum moom mooy maire bi nga xamante ne moom moo am rek lu tol ci juróom-ñaar fukki at moom nag dafa daal di ñàkk bakkanam ci ab lakk-lakk loolu nag mu nga xewee ca këram gannaaw ba nga xamante ne moom rek moo dëkkoon mu mel ni sax ab court circuit moom moo daal di rek li ni mel waral nag ba kii di Adja Fatou Lo jum am lu toll ci juróom la ñuy waxtaanee waa ji nag Youssou lay wuyoo moom nag dañ ko daal di bett rek mook jabaru grand frère am loolu nag ko bett sax di ay voisin am gannaaw ba nañ leen Youssou nag nag amul benn excuse bu mu daal di joxe rek lu dul wax sax naan voisin yi dañoo sàcc rek li nga xamante ne moom moo di téléphone am waral sax ba mu dal di leen jiitu rek ca yoon daal di déposer ab plainte moom Youssou ngir rek ñooñu nga xamante ni sax bett nañ ko ak jabaru grand frère am daal di leen rek yóbbu ca yoon moom Youssou nag ci fàttali ba ñu ko bettee bile excuse rek la daal di am taqal ña nga xamante ne ñoom ñoo ko daal di bett wax sax ne dañoo sàcc téléphone ba noppi rek porte leen plainte Papis xarañ lu daal dinay rek addu gannaaw Boy Niang daal di am ndam ci kaw Balla Gaye moom Papis xarañ lu nag nekk ko jege lool Modou Lo ba noppi rek yor lépp luy mistigam daal dinay rek wax sax ne Boy Niang ñoom pare nañ rek ngir bëri ak moom ndax kat jamono ji nekk na mbër moo xamante ni kenn mënatu ko éviter ndax dugg na ci cour des grands waral sax moom Papis xarañ lu joxe kàddoom rek di wax ne pare nañu ngir affronter kii di Boy Niang Yékini moom mooy mbër ma nga xamante ni sax daanaka mën nañu wax ne toog na ay at daanul ba noppi rek doonoon fi roi des arènes doonoon mbër kaamil tamit daal nañuy dellusiwaat rek ci parcours am ak fa mu jaar ak na nga xamante ni sax noonu la amalee carrière am bokk rek ci ay raay yu bëri yoo xamante ni moom Yékini am na ko rek doon daanaan boo xamante ne kenn dootu ko présenté ci wàllum làmb daal dinañuy retracé bii les parcours Yékini mi nga xamante ni sax daanaka gannaaw mu daal di bàyyi bëre bàyyi na fi palmarès bu riche lool ci wàllu wàllum làmb Gris do ak Ama Baldé mu mel ni reporté nañ ko loolu nag daal di nekk loo xamante ni sax la ko waral rek bokk na ca gaañu gaañu ba nga xamante ne kii di Ama Baldé daal na koy am mu mel nag combat bi daal nañ koy dàq rek fii kii fan ngir rek amal ko ak sax gaañu gaañu ba nga xamante ne moom la Ama Baldé daal di am waral ñu daal di dàq bi le combat wax ci wàllum football Bamba Dieng mu mel ni nag sagar mu ngay xeeñ digganteem ak Olympique bu Marseille gannaaw ba nga xamante sax nekkoon a ci a jafe-jafe rek ci bile club waaye nag la ñu daal nemeeku rek mooy Bamba Dieng daal di nay supprimer lépp loo xamante ni rek ay photom la daal di koy lié ak Olympique bu Marseille mu mel ni nag jamono ba neexatul dara Mbaye Diagne daal di nay briller ci clubam rek moom attaquant doomu Sénégal bi wane waat la mu mëne bu baax a baax foofa nga xamante ne fa la daal di nekk moom Mbaye Diagne di doomu Sénégal mbokk i safoon dañu teewlu li ñaan loon seen acte du jour di leen ñaanal jàmm di leen wax. ngeen abonné suñu chaîne bi te laal close notification bañ a raté dara suñu information jërë ngeen